boo bëggee information yu wóor abonné ci seen biir Lamp Fall Léral du baax mooy joxe information yu wóor ci jamono. ñu ngi leen nuyuwaat bu baax di leen siyaare waaye di jiite si siyaare bi nag Cheikh Mouhamadou Mountakha ni ñu waxee rek di ko ñaanal baax suñu borom bàyyi ko faay di ko siyaare baax sëñ Amdi Fall mu sëñ Moudou Fall Mbenda waaye noonu lañ koy jaaree nag sëñ Abdou Rokhaya Fall mi xalifa sëñ Mortala di ko ñaanal baax suñu borom bàyyi ko fi ba li mu yéene liggéeyal sëñ la mu liggéey ko si kaw njortam waaye di siyaare baax nag suñ kilifa gii ñu dendal muy sëriñ Cheikh Fall Khadim Euh, nga xam ne tey booy xool buntu ko Serigne Mor yi mën nañ ne mboolem sët Serigne Mor Talla yi mooy seen kilifa waaye mu feggoo nag ak Serigne Cheikh Soda Fall mu Serigne Bassirou Fall alxuraan Serigne Bassirou Fall euh, lii ñu wan ne moom mooy yoon wi euh, Serigne mel ne fekk nañ la fii si liggéey bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha jox na ko njabootu Cheikh Ibra gi jëppi soo ba nëgëni murid yi ànd ko ak taalibe yi ak Serigne si yéen ñi nga xam ne yéenay ji yéenay jëwriñu yoon yi ñu fekk leen fii yoon yi yan kàddu la si sëriñ bi soññewaat si nañu war a mën a jàppaatee liggéey yi nga xam ne sëriñ bi nga koy wootee. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bi sant yàlla suñu borom di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou di sant jëwriñam je di taalibeem bu mag ba maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Baabul Muriidiin Euh, li nga wax liggéeyub sëriñ Touba bu mu jox seex bi rek tawféexi murid yëpp waaye tawféexu yoonu murid yëpp nin ko gisee nag mooy ndigalul sëriñ bi jëfe rek la laaj fii jamono toll nag nga xam ne mooy tolluwaayu àdduna fi la dëgg-dëggi bi war a xamee ab taxawaayam digganteem ak sëriñ Touba ci. njàngaleem maam Cheikh Ibrahima Fall mooy ci jamono yu njëkk yi ba nga xamee ne àdduna ak séegul fii la xewoon booba moo di ceddo booba la sëriñ bi woote nag eh, teg siraatal mustaxima muy yoonu njub bii nga xam ne bi mu ko wootee ci la Cheikh Ibrahima Fall wuy si nargan taalibe yëpp jàngal leen nu jariñoo ci yàlla sunu boroom ak beneen tam te jaarale ko ci sëriñ tuubaa looloo nag tey jii la ko àdduna indiwaat tey lañ ko gën a soxlawaat ndax jamono daa toll ci nit ñi nga xam ne jëfewuñ ndigal te bàyyiwuñ ay tere bëgg na noo réeral jaami yàlla yi kon nag gindi jaami yàlla yi moo jot ci xam ne jëfe ndigal te bàyyi ay tere mooy tax nit ki raw àdduna raw alaaxira mm, kon daal noo ngi wax ne képp ku dib taalib te yaakaar Sëriñ Tuubaa na nga fullawu te faydawu te jàpp pas-pas yam mag yi jàppoon ci xam ne liggéeyal Serigne tubaa ci la njariñul àdduna ak àllaaxira ne kon bu nu kenn mën a indi ci e, yittey àdduna yeeg taxawaayu àdduna yeeg gisinu àdduna yi ba tax nu am yenn gisin wudut nangoo doon taalibe te nangoo liggéeyal Serigne tubaa rek ndax lool rek a fi des. waaw jërëjëf Fall Ndiaye mu mel ni bi nu xëyee dégg nañ si ay yenn journal wala si yenn yoo xam ne dafay am ñeneen ñoo xam ne dañoo jaaroon si suuf. di wax ne liggéey bi kat e, sëriñ bi nee na nañ ko bàyyi ba ji ba jimmi jamono ba murid yu bëri xëy kenn ku nekk di woote di laaj ba xam ndax liggéey bi dañ koo famu ndax it yàlla na lu mel nii ku toll mu Sëriñ a joxe ndigal lu mel nii te jox ko ki nga xam ne moom la ko war a jox ah, ba bisub tay bi am ñeneen ñu jaar ci suuf di def ay wax yoo xam si ni daal soo ko déggee da nga xam ne lii dëpp wut ak li nga xam ne loolu lañ fondation woon yoon wi. Hmm, yàlla bi moo yàlla sunu borom moo bindee noonu àdduna bu wootee te woo ñu baax ñi ak wooway gëm ñi daa war a am ñu taxaw. am taxawaay buy tax ñu xam ne ñii ñoom gëmunu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla yónni ci ñëpp te julli yee gën a néew Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul amul woon loola li yonent yi amul nag awliyaullah yi amuñu ko Sëriñ Tuubaa amu ko Seex Ibra amu ko ñi wootu ñooña donn leen it ñoom itam noona la ñuy ñàkkee loola mooy ñu baax ñi rekk la ñuy am ñu baaxuñ ñoom duñ leen am ñu baaxuñ ñi ne ginnaaw noo ñàkk ah te ñoom am lu dul lu baax ñay def loola seen bop rek lan ko defal ñu dess leen di bañ a xel kenn waru leen tuddu sax ndax day melni kon dara lan ci askan wi te duñ ca dara ndax ginaaw mom loolu mëna waxe du téli señ bi bëgg dana ko am kon wax ji amul njëriñ jëf rek li Cheikh Ibra indi mo am njëriñ jërëjëf Fall Ndiaga mu melni tay ji bu ñu xol ni mu ko waxe légui rek si njabootu señ mortaale gi nga xamne ñoy ñooy señ suñ yi lan la leen señ bi gëna denkat si liggéey yi nga xam ni si tey bu la neexoon tey comme ni ma ko waxee léegi rek toog nga yebal sëñ Xaadim wala sëñ Taala waaye tey da ngaa ñëw si biir liggéey bi ànd koog murid yi ah, ñëw si waar yi dina xam ne eh, sëriñ bi moom wóotewul ba noppi rek toog sa kër ga. loolu di sëñ Sadio yi mooy da nga koy yaatal rek njabootuk maam Cheikh Ibra Fall gi ndax njabootuk Cheikh Ibra gi moo gën a yaatu njabootuk Cheikh Ibra Fall gépp li nu war mooy bu sëriñ Touba diglee. nun ñëpp nu génn te bañ a des ci kër yi bu ko defee eh, loolu lan nu bàyyee loolu la sunu loolu la nu sunu maam yi bàyyee loolu la nu sunu bàyyee bàyyee loolu la sunu bàyyee yor ba na génn si jëfe ndigal bàyyi ay tere eh, te ndigal li mooy génn leen bu ne génn leen nag ñëpp lañu woo ndax fi mu toll sëñ saa jeey saa boo déggee ñu wootee ci jumaa ji allahu akbar allahu akbar ashadu an laa ilaha illallah sun yàggee àggee ci ay xala salaati ay xala falaa ñëpp lañu woo kon ñi wuy jiwut nag su yàlla suñu borom dogalee Cheikh Ibra woote te wooteel Serigne Touba kenn warta des ñëpp war a génn. waaw ah, mu mel ne fegg nañ la nga feggoog ak Serigne Cheikh Fall Soda ku ne xam na sa digganteek moom. waaw mm-hmm. ah, ku ne xam na sa diggante ak njabootu Cheikh Ibra gi nga xam ne dañ lay bàyyi xel te ñenn ñi nga féete leen wàllu mag loolu dafa mel ne taw ah, tawféex la. garage daaru waaw ñi ngi romb Madiana léegi gis ngeen mbooloo mi. ñëpp ànd nañoo ko euh, njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi ñu ràññee nag ci biir liggéey bi seexi maam Cheikh Ibrahima Fall yi ndax ba ndigal li jógee mbooleem seexi maam Cheikh Ibrahima Fall yi dañoo ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi ñu ciy ràññee baax am Amdi Moustapha mi nga xam ne euh, njaboot la ci waa kër sëriñ Ababacar Lo ñi nga xam ne euh, bokk nañ ci njëkk ñi njëkk jox seen bopp maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Moustapha nga teew fi tey teewaaleel fi mbooleem njabootu Eh, Serigne Mbaye Lo yan kàddu ngay soññee ci liggéey bi nga xam ne eh, ndax seen maam dafa toppoon Cheikh Ibrahima Fall eh, bu yàgg ba léegi tey jii ngeen agsiwaat bi fii sët tey di doxal loolu tey. waaw jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu waa àddina ci bis bu am solo bi nga xam ne tey Sëñ Tuubaa moo xëyloo waaw ah, Sëñ Tuubaa wax ne ñi raw ñëpp nag xëyal Sëñ Tuubaa tax ñi raw Cheikh Ibra daa xëyaloon Sëñ Tuubaa maam Thierno daa xëyaloon Sëñ Tuubaa Daam Abdourahmane daa xëyaloon Sëñ Tuubaa xëy na nag ñoom seen jéego yi moom mënut a tolloog jéego yi kenn waaye nag nit ñi topp ci seen gannaaw rek moo tax nag wuy ci gi nga xam ni njabootu cheikh beeg yëpp wuy ci nañ ko ak cheikh yi mooy liggéey bi noonu la dañ koo bokk Sëñ Tuubaa dafa waxoon ne xawaytu ma xawaahu saabiquuna wa jaa xawmu muraafiquuna nit ñu njëkk ña day lañu la ñu làqoon làq naa ko waaye nag sunu borom daa am ñu ma booleel ñu ay àndaale diinoon si waa islaami yi laa yuhmadu inda al ilaahi wa bihi nu jaddidu nu dañuy wax ni nuunun in enzama nafsu aw in sarako axar nuun moom su ko nit waxee ci arab mooy dafa màggal boppam wala da cee boole waale ñeneen looloo waral nag kon sëñ Tuubaa saa su wootee rek eh, nga gis njabootu Cheikh Ibra ak Cheikh si ci jàpp ñëpp dañuy daal di ñëw wuy si ngir jëfe ndigal li fii ñu ñëw yi itam mooy Tuubaa nag Tuubal Mahrusa mm-hmm. moom kàddu gi kenn rek ko yor du ci diis moom ndigal li saa bu jugee mm-hmm. kuy diisoo moom day diisoo borom ndigal la waaye bu ndigal li xasee ba jug mm-hmm. Baye Fall yi moom dañ koy jëf moom mm-hmm. ndax Baye Fall kat lépp li may jàpp mooy du bett kenn ñàkkoon a ñëw gi daal mooy mooy mooy bett nit ñi <laughs> ñu lay dégg léeg-léeg ci say kàddu ngay wax ne yoonu Baye Fall ñàkk cee wax sax moo gën wax dëgg la xam nga <laughs> loolu xóot xóotu diine la moom yoonu Baye Fall ndax suñu borom naka jekk dafa am ay mbir yoo xam ne moo ko yoral boppam te itam da koo nëbb mhm. mën nañu wax ni sax lim nëbb ëpp lim feeñal mhm. te loolu saa su nekk ma wax ko di ko waxaat Sëñ Tuubaa fi mu ne mhm. lim bind nii nit ñi gis ko la ci la ca dënn ba te bind ko ëpp yonente bi li mu wax ci ay xadis nit ñi jàngu ko lam denc ci dënnam te waxu ko moo ëpp loola alxuraan saahir si ci feeñ ñu mën koo firi lay baatin ba te xamuñu ko moo ëpp mbirum Cheikh ibrahim itam ci biir lislaam noonu la mooy lii ci fenn nii nit ñi di ko gis sax la ko téye ko ëpp doole te loola ca la diine tàmbulee ca la àddina tàmbulee ndax àddina ngi tàmbulee ci sunu borom subhaanahu wa taala fekk ay malaaka yoo xam ne dañoo jaamu yàlla ay millions yi at mu bind tey jenn jëmm joo xam si tey ci bëccëg gi la ko la ko bind mm. wooragul julleegul defagul dara mm. mu ni millions malaaka yëpp nañ si jot ci moom te kooku defagul genn jaamu yàlla te kooku defagul benn jaamu yàlla loolu mooy lu soobi suñu borom mhm. noonu la koy defee waaye eh. ñàkk a nanguloon bénéfice nañ mhm. ba iblis ma ko bañoon ni déedéet loolu mënta nekk eh. yàlla mënta mhm. jox kenn lenn li iblis ba léegi ku ko tudd daj da koy saaga day teg rajo kon mbiru Cheikh Ibrahima itam noonu la mel fa ko suñu borom denc daal moom mbiru boppam la mu ko xamalul daal xamoo ci dara waaye léegi nag loo xamul dara moom maanu caa gën di wax moom la ndax jàmbaar jooju nga xamante ni mooy Serigne Ababacar Lo waaw euh, lan nga ñuy dikkal ci ñoom ndax mel na ne képp kuy roy pas-pas wala ak jaayante eh, warees na ko roy ci jàmbaar jooju nga xam ne mooy Serigne Ababacar Lo waaw Cheikh Ababacar Lo moom ci biir ci ginnaaw Cheikh Ibra hmm. moom day taarix hmm. xamuñu bi Sëñ Tuubaa yeewee Cheikh Ibra 1891 hmm. ginnaaw ga nekk àdduna ak Sëñ Baara mu sanc Tuubaa maanaam ca la ca la la ca ko yebal boo Ndar Cheikh Ibra daara ji mu njëkk mooy tugg tugg teg ca tasineer mm-hmm. foofu la ay taawam gënee àddina waaye loolu lépp dafa ñaan ndar ndar ndar mm-hmm. Cheikh Ibra li ko indi woon ndar mooy jaay am mbayam mm-hmm. waaye bayewul woon biir ndar tugg ak tasineer tugg doon kër ga tasineer di daara ja foofu la doon bayee ba muy dem nag foofu ko Sëñ Tuubaa joxoon ci la dajeeg sëñ Béyloo

Euh, sëñ Tuubaa gi ci Cheikh Ibra mm-hmm. mu mujjee yem Cheikh Ibra ndax naalam moo doon mm-hmm. demoon fekk ji sëñ Tuubaa mm-hmm. muy sëriñ bi daa bëggoon Tuubaa bëgg gi àgg ci moom ndax sëñ Tuubaa euh, dañuy wax ni dafa wax ni maxab maxabati al muxtaari sayiduna xubbul maxaaniina wal ahliina wal walada bëgg ma bëgg si yant bi ak yàlla suñu borom dindi na ci man bëgg doom ak kër ak lu noonu waaye nag Touba bàyyi woon na ko xel ba wax nañu bi mu nekkee Diourbel boo ko fekkee ni ko Touba laa bàyyi ko bu la nuyoo dana la nuyuwaat kon suñ Touba amoon na ko tegoon loolu rek mooy dox ba suñ jëmm yàlla tey jii suñ mun taxaa dem ba seet loolu xam ne dëkk bi defar xar kanamam gi ak yaatal ko ak defaraat ko loolu dana war moo tax mu gis ni si Ibrahima Fall mi nga xam ne néeg bi Sëñ Tuubaa mujjee liggéeylu ci Jurbel nga xam ne ci la bàyyikoo ci kaw suuf gi ci àdduna ñi di ko mën a gis ci li ci zahir Cheikh Ibrahima Fall lu ko liggéeyloo loolu waral Sëñ Muntaxa jël liggéey bi liggéeyloo ko Sëñ Amdi Boodu Mbenda Fall wax ji nag bari na ci lool moo tax mu wax ci wolof ci àdduna bi ak ci mboolem ñi nga xam ne eh, dañu ñu benn yoon di noonu Sëñ Tuubaa bu dee ki bokk ci yoon yi mooy ki nga xam ne moom noonu Sëñ Tuubaa la bëggul dara lu baax bu dee ki mooy ki nga ne bu sëñ bi ñëw bu laajee du joxe waaye itam yëpp mooy taayir loo murid